fas yéene dikkaat ak yéen ci suñ téere bii di al ajuroomiya xam ngeen ne biñ duggee weeru koor wi dañ koo ajandi woon tey nag ñu fas yéene dellu siwaat ci ñu war toll ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne ci la borom téere bi jàngale lii nga xam ne mooy naat an naat comme niñ ko baaxoo di defee dañuy jàng yax bi matnu bi ba nopi doole ñew ci saraa bi borom téere bi nee lil man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi, wa ta'rifihi wa nat naat fay top man'ut ma manam melo day top lamiy melal ci lu mu koy top ci rafaga ca nasab ga ca xafat ga ca maarifal ga ca nakiral ga lépp da ko ci topp maanaam su fekkente ne man oot dafa nekk palaasu rafaa naat dañ koy rafaa bu nekkee palaasu nasab naat dañ koy nasab bu nekkee palaasu xafat naat dañ koy xafat te mooy jar su fekkee dañ koo rafaa naat dañ koo maarifal dafa am liif ak laam wala mu am daal luy wane ne su boobaa naka tamit naat day nekk maarifa bu nekkee nakira naat day nekk nakira mu taal di tàmbali nag dina jox misaal yi mu ne taqulu qaama zaydun al aaqilu mel ne nga ne qaama taxaw na zaydun al aaqilu wa raaytu zaydan al aaqila wa marartu bi zaydin il aaqili xam nga ne bi mu ne qaama zaydun kon zaydun moom mooy man'ut place rafaa la nekk ndax faa'il la kon naxt ji mooy al aaqil da koy topp ci loolu mu nekk al aaqilu topp na ko ci lépp euh, zayd maarifa la moo tax al aaqilu tamit maarifa la topp na ko ci lépp daal naka noonu nga ne war a ayitu gis naa zaydan zayd nekk mafoolin bihi foofu nekk palaasu nasab nga ne al aaqila wa marartu romb bi zaydin ci zayd al aaqili comme ni nga xam ne zayd dafa nekk palaasu jar foofu ndax baa bi moo ko jar naka noonu tamit euh, naat bi day nekk majruur muy al aaqili mu wax la lenn ci lan mooy maarifa mu ne la wal maarifatu xamsatu ashyaa bëñ ne maarifa ne day nekk juróomi mbir al ismul mudmaru tur woo xam ne damir la mel ne ama ana ak anta mel ne ana ak anta yooyu ay damir la waaye maarifa la naka noonu wal ismul alam tur woo xam ne alam la alam mooy loo xam ne buñ ko suñ ko tuddee rek ñu xam ne loola la mel na nga ne Zayd ak màkka boo ne Zayd tur la wu ñu xam wuñ jubloo woo boo ne màkk dëkk la bu ñu xam loolu mooy alam wala al ismul mubham tur woo xam ne dañ koo lëm mel na nga ne haada wa haasihi dañ koo lëm waaye teewlu xam nañ kiñ ci jublu ndax da nga koo joxañ ismu isaara la moo tax ginnaaw xam nañ comme doon nag kon day nekk maarifa wa haulaay wala al ismu alladi fihi al alif wa laam wala tur woo xam ne dafa am alif ak laam mel na nga ne ar rajulu wala xulaamu góor gi wala ngóor si yooyu yëpp maarifa kon juróom yooyu moom la jox misaal ci maarifa mu ne la wama udifa ila wahidin min haasihi l arbaa ak loo xam ne dañ koo daaf ci benn ci ñeent yi benn ci ñeent yooyu mu tudd maanaam buñ luñ ci laaf day nekk ba tey maarifa wan nakira mën a nakira nag moom kullu ismin shaa'i'in fi jinsihi laa yaxtasu fiihi waahidun doona aaxar nakira buñ ko waxee mooy wépp woo xam ne tur wu la ci aw xeetam nga xam buñ ko tuddee duñ ko jagleel lenn bàyyi la ca des boo nee rajulun benn waay rajulun kay ismu jinsi la ci góor waye nak xamuñu ko ñu wax ma tax luñ ko kenn rajulun ben way wala nga ne farasun fas wu jigen fas yu jigen yépp dañu dugg ci biir jégleeloo ko wenn fas wu jigen waye farasun mom lu siiw ci turu fas wu jigen ainsi de suite yépp non la mu ne wa taqribuhu suma la ko doon dama nan la kullu ma salaha du alif wal lam alayhi lépp lo rek da fay yewen ñu mën ca tabal alif ak lam melna nga ne arrajulu wal farasu xam nga arrajulu fi ñu toll nii maarifa la wal farasu maarifa la waaye boo dindi woon jëf ak laam gi danga nga naan rajulun daal di ne farasun kon loolu mooy li nga xam ne mooy mat na mi ñu ñëw nag ci saraa bi mu ci saraa bi mu tàmbalee ci buntum naat ak melal lan mooy naat wax la lan mooy lan bu ko nax waxee luñ ci jublu mu ne la qaala al muallifu rahimahullah maanaam ki nga xam ne moo taalifkat bi moo taalif téere bi nee na baabu naati bunt bii naat lañ ci jàngale mu ne la a naatu naatu day yaani al wasf liñ ci jullu mooy aw melo kon naat mooy aw melo taqulu danga wax ne naatahoo ay wasaftuhoo nahattuhoo wasaftuhoo melal naa ko mooy melal naa ko waaw boo baatu baatu naft daal baatum wasfu lay tekki ñoo bokk même maana moo tax ma ne wali haza loolu moo tax yutliqu baadu naxwiyiina alayhi al wasfu moo tax lenn ci nuxaat yi bu ñu ko dee jàngale sax dañ koy tuddee faf al wasfu mu ne fal wasfu wa sifatu wa naatu bi maanan waahid wasfu ak sifa ak naat benn maanaa la amee وهو أي النحت مم نحت وصف يوسف به ما سبق وصف يوسف به ما سبق أو ملل وخما دنجي ملل لجيتو من فلا يتقدم النحت على من منحوته نعت دو جيتو آه، منحوتم مانام أو ملل دجيتو لم لمي وقد يوسف بقدح وقد يوسف بمدح دسنا تي ملل غير غاني دسنا تي ملل تميت غير تاغ nee na fa ida qulta boo waxee ne jaa zaydun al aalimu faqad wasaftahu bi madhin boo nee zayd dikk na boroom xam-xam ba jaa zaydun al aalimu kon day tagg nga ko melal nga ko ci aw tagg waaye ba ida qulta jaa zaydun al jaahilu zayd dikk na jaahil ja mooy kuréel ka faqad wasaftahu bi qadhin kon loolu mooy wasf boo nee jaa zaydun al xaliimu zayd dikk na ku lewet ka نانا لول مدح لا بوني جاء زيد الاحمق لول قدح لا مانام زيد دوف بو دوف بو دوبورال با نيونا من هذا من حيث المعنى ان النعت من كو داغ بون كو دي تاك دنج نان نعت وصف لا للمنعوت ولا بد ان يتاخر عنه كون مونتا نياك داي مودي نيو لامي ميلال اما من حيث الاعراب بون كو دي الاعراب نك فيقول المؤلف رحمه الله تعالى naxtu taabiun lil man'uuti naxtu dafay topp man'uut ma fii raf'ihi ci buñ ko rafaa wa nasbihi ak buñ ko nasabee wa xafdihi noonu lañ koy lixraabe walam yaqul wa jasmihi waaye andaalewul jasma baatu jasma ñëw fi lu tax mu ne li anna al afxaala laa tunxat ndax jëf yi kenn du ko melal jëf yi duñu am naat mun tur rek mooy am naat wa ida kaanat laa tunxat su fekkente ne dee su ko melal nag wal jasmu yakunu fi l afaal te xam nga xamoon ngeen ne jasmu moom fi'al lañ koy def kon isan laa yumkinu an yakuna an naxtu taabian li man'utin fi jasmin loolu moo tax naxt du topp man'ut ci jasmu li anna al jasma min xasaa'is al afaal jasmu moom fi'al yi ñoo ko jagoo wal afaalu laa tun'atu mu ne fal afaalu yun'atu biha wala tun'atu maanaam fi'al yi yun yunaatu biha danañ am eh, was waaye deesu leen wutal wasf taqulu mel na nga ne marartu bi rajulin yukrimu dayf gis nga maanaam dañ ciy fal afaalu yunaatu biha dañ ciy melale waaye kenn du ko melal dañ ci melale waaye kenn du ko melal nga ne marartu bi rajulin yukrimu dayfa romb naa waajoo xam ne dafay teral gan jëmmi jumlay mu day fa jum mu day fa ci boppam mas euh, kii naat la naat la walakin waaye doo wax ne laa taqul doo wax ne yukrimu day fa rajulun yukrimu day fa rajulun déedéet loolu du sotti kon fa tajaalu ar rajulu sifatan lan ahli yukram su ko defee nga def rajul mu nekk sifa ci yukram loolu mënta nekk loolu mënta nekk kon lu ñu wax marartu bi rajulin yukrimu fa waaye kenn wax yukrimu dayfa rajulun te li nga jublu ci rajulu jooju yi mooy mu nekk sifa déedéet loolu mënta nekk kon daal lii leer rek mooy jasm moom du bokk ci yi nga xam ne danga nga dañ koy dañ koy maanaam naat bokkul ci yi ñuy jasam kon laa bëgg a wax borom téere bi ne maanaam borom saraa bi mu ne fa ida saara almanuutu marfuan saara anaatu marfuan fa taqulu jaa zaydun alfaadilu comme ni ma ko waxoon ci jaa zaydun al aqilu benn la maanaam daal su fekkente ne naxt dañ koo rafaa man xoot mii dañ koy rafaa waaw man xoot mi bu ñu ko rafaaxee naxt dañ koy rafaa jaa zaydun al faadilu walaa yajuusu an taqula jaa zaydun al faadila loolu mënta nekk doo wax mukk jaa zaydun al faadila déedéet jaa zaydun al faadilu aw jaa zaydun al faadili loolu du mënta nekk jaa zaydun al faadilu rek nga mën a wax mu ne yajibu an taqula jaa zaydun alfaadilu mu ne ida kaana almanhuutu mansuuban su fekkente ne manhuut mi dañ ko nasab ba tey saara naxtu mansuuban fa taqulu raaytu zaydan alfaadila comme ni ko waxee woon ci alaaqila mu ne laa xayru kenn du wax leneen loolu rek la ngay wax wala yajuusu an taqula raaytu zaydan alfaadilu déedéet wala raaytu zaydan alfaadili loolu doo ko wax mu ne law anna ahadan قرأ هندك كتابا فقال هذا كتاب جميلا نانا كان في يو برون توك في يو دي جانج دي تدو اب تيري من لي لي تيري بو لا دادنا هذا كتاب جميلا ماذا تقول خطا دا خامن لي خطا لا نجومتا لا من والصواب هذا كتاب جميل ndax naxt تابع للمنعوت في رفعه raf'ihi وخفضه وتعريفه وتنكيره kon taqulu kita xaratu kitaaban jamilan xaratu kitaaban jamilan waaye boo waxee ne xaratu kitaaban jamilun dañuy xam ne loolu njuumte la wa sawaabu jamilan nasartu nazartu ila kitaabin jamilin loolu moo jub waaye boo ne nasartu ila kitaabin jamilun loolu xataa la loolu mu ne waxala haasa faqis kon xiyaasal loolu yëpp mboolem naxtu ak man xoot yëpp noonu la ñuy doxe كون بنت لبا خام نغا تي خياس ندخ مطرد في بابه اذا يطبح المنعوت في رفعه اذا كان مرفوعا وفي نصبه اذا كان منصوبا وفي خفضه اذا كان مخفوضا كذلك يطبح المنعوت في تعريفه وتنكيره اي اذا كان المنعوت معرفه كان النعت معرفه واذا كان نكره كان النعت نكره لو لير لا نكو ما جوخال مثال من لا مثلا marartu bir rajuli faadilin loolu jubut marartu bir rajuli faadilin déedéet bir rajulil faadili loolu moo jub moo tax ma ne la loolu laa yasihu du wér li anna faadil nakiratun wa rajulu maarifatun idan maata aqul lan laa war a wax marartu bir rajuli al faadili loolu mooy li jub marartu bir rajuli al faadili boo ne marartu bi rajulinil faadili bi rajulinil faadili ba tey loolu jubut déedéet loolu xataa lan nga war a wax euh, da nga naan laratu bi rajulin faadilin wala bi rajuli al faadili loolu rek nga mën a wax kon loolu yaa xam naa ne euh, misaal yooyu ñu ci joxe doy na ñu doy loo loolu tadrib ala naat maanaam ñu andi kon benn li'raab ci naat benn li'raab nga ne akramtu ar rajula al aaqila أكرمت الرجل العاقلة أكرم فعل ماض مبني على السكون lu tax لاتصاله بضمير رفع أكرم ndax أكرمت moom nga wax dafa jokkoo ak taagoo xam ne damiru rafi la kon su boobaa dañ koy binaa ci sukkoon at taa'u damirul mutakallim mabniun ala damm waaye fii ma ad rafi faa'il damirul mutakallim la dañ koo binaa ci damm waaye mi ngi nekk ci palaasu rafa fail arrajula mafulun bihi mansub wa alaamat nasbihi alfathatu zahira ala axirihi mafulun bihi la dañ ko nasab mandargam nasab mi mooy fatha gi ne ci mujj gi al aaqila naatun li rajulin naxta la ñeel rajul maanaam melalo ci moom wa naatu nag al mansub mansubun wa alaamat nasbihi fathatun zahiratun ala axirihi kon mi ngi nonu akramtu ar-rajula al-aqila ngana jaa al-fata shujaa'u jaa al-fata shujaa'u jaa fi'lu madin mabniun 'ala al-fat الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف من فاعل دنكو رفا دم غن نطلي ألف موي الفتى منها من زهوره التعذر لكو تري من فين موي منتنك dafa jafe as sujaacu naxtun lil fataa sujaac naxt la ci fataa wa naxtu marfuun ma kon marfuun wa alaamat rafihi a dammatu zahiratu ala axirihi mandargam rafaa mi mooy dàmm gi feeñ ci mujj mi ngi noonu as sujaacu marartu bil qaadi al aadila marartu bil qaadi al aadili bil qaadi al aadili boo al qaadi la al aadila xata lay doon kon bil qaadi al aadili marra fixlu maadin mabniyun ala sukun lu tax litisaalihi bi taa il faaili comme ni ko waxee woon ci akrama ak akramtu mu ne u damirun muttasilun ala dam fi maali rafi faail bil qaadi al baau xarfu xafdin xarfu jar xarfu xafd bi mooy al baau xarfu xafdin al qaadi ismun maxfuudun bil baa'i وعلامة قفده كسرة مقدرة على آخره منع min zuhurihi athiqal dafay diis maanaam li ko teree feeñ mooy day diis boo ko feeñaloon moo tax ñu dal koy nattale al aadili naxtun lil qaadi wa naatu al majruur majruurun wa alaamatu jarihi kasratun zahiratun ala axirihi akramtu al taaliba al mujtahida akramtu الطالبة المجتهدة أكرمت أكرم في ماد مبني على السكون لطخ لاتصاله بالطاء الفاعل الطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الطالبة مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره المجتهدة نعت لطالب منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة xalaa axirihi kon yaakaar naa ne buntu boobu moom euh, man nañ co doyloo loolu incha allah di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu ak yombal defal ñu dégg ak topp defal leen ko hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain